ci la yee li nga xam ne mooy dëkkandoo yi bi ñu songee kër gi nga xam ne fa la tàkk-tàkk bi am jéem nañoo nag ñoom euh, dëkkandoo yi fay lakk gi ba sonn waaye lakk gi fekk na dépassé na leen euh, bi sapeur nag ñëwee vers quatre heures trente euh, ci la ñu mujj fay lakk ji waaye lakk jooju mujj naa andi naqar ak tiis ci diwaanu Mbuur Sénégal gépp mujj nañu di ko jooy muy eh, yaay ju faatu waaye yu baale juróom benn bakkan li andi tàkk-tàkk boobu nag nga xam ni moo indi tàkk-tàkk boobu eh, kenn ci ay doomam bu góor eh, wax nañu ni dafa xaw a wéré bi am tuuti feebarum xel waaye foo ko fekk nag ku bëgg li nga xam ni moom mooy tux cigarette la ñu jàpp ni tàkk-tàkk boobu bu dee am kon ci Euh, jàpp nañu ni ci xale bu góor bi lay jëlee ci wàllum euh, tux cigarette ñu jàpp ni mégo sax moo taal li nga xam ni moom mooy euh, jéye moo andi jéye googu loolu nag bi mu amee wax dëgg yàlla ci ay seede yu rafet yoo xam ni mbokk ndaw si nga xam ni moom moo faatu moom moo faatu seede nañu ay seede ku bëggoon mbokk la waaye ku baax la ku bëggoon li nga xam ne tamit moom mooy ay njabootam mu doon lu naqar ànd ak tiis ci diwaanu Mbour ci quartier bii di onze novembre ñu di ko jaale famille bi nga xam ni ñoom ñoo faatule di massawu tamit képp koo xam ni euh, mbir mi naqar geeg tiis gi ñoo ngi koy bokk ak yow. yëmbal fa la xewee xale boo xam ni ci juróom-ñaari at ci la yem euh, xale bi nag euh, wax dëgg yàlla euh, dañ ko violé bi yaayam yóbbee ko kër docteur hôpital hôpital confirmé na ni viol bi am na waaye xale bi moo ngi accusé ki nga xam ni moom mooy ab cousin am ñoom nag dañoo dëkk dëkkum famille loolu nag tax na sax ñu arrêté ki nga xam ni moom mooy cousin bi te ubbi enquête ci wàll woowu nga xam ni moom moo am bu ñu xoolee nag semaine bi nag bëri na ay viol yu ñuy jàpp yaa ni nga fàttaliku mbindaan mi nga xam ni moo jiiñoon njaati géem Euh, ni moom it euh, da ko doon tëddee euh, waaye tamit jiiñaale njaatigéem bi nekkoon Liberté 6 jiiñaal tamit ki nga xam ni mooy faram ba woon gis nañu tamit ci jeudi bi passé koo xam ni tamit jànq bi di mindaanam moo moo jiiñ li nga xam ni tamit moom mooy moo ko jiiñ viol waaye viole bi sax dafa ànd ak ñu da ko ëmbal loolu nag taxoon na nag jamono jooju nag mu andi jëye ci biir këram mbokk mi nag gàmmee la waaye dafa fekkoon tamit jabar ji moment boobu jabar ji ëmb euh, ki nga xam ne tamit euh, jànk bi ko jiiñ tuuma bi moom it ëmb weer yi nga xam ne tamit am nañ ko euh, dëgg yàlla sorewul loolu nag taxoon na ki nga xam ne mooy borom kër gi def na lu ne pour mën a set ak boppam waaye miracle dafa mel ni da cee am ndax ki nga xam ni moom mooy jabar ji bi mu demee hôpital stress bi mu doon dund tax na ñu ni ko daal mun nañu mënta am doom amee ko amin gu normal fi ñu koy jaar rek mooy ñu opérer récupérer ko waaye tamit euh, xale bi dina am malformation bu juddee loolu nag bi ko jëkkër ji déggee rek dafa génn ci néegam tasanteeg jabar ji ak yaayu jabar ji mu ni maa ngi waat ni bu dee ëmb jii ñu ma jiiñ sama janq bi ëmbal ma ko yàlla bu doom ji juddu te yàlla bu doom ji juddu waaye nag bu dee tamit euh, ki nga xam ni moom mu jiiñ ëmb gi lii ñu wax sama jabar waa kër docteur wax ko yàlla na ko dal yàlla def nag euh, bërki démb euh, moom jëkkër ji ci la ma woo ni ma ji bi bi loolu amee sama jabar dafa wasin normal li nga xam ne moom mooy xale bi tamit indiwul benn mal formation ka nga xam ne mooy jànk ba nag toog na ñetti fan di matu waaye di doom ju juddoo wax dëgg yàlla dafa àndaale laago kon gis nañu ni viol yi parfois ñu jiiñ ko ñi nga xam ne tamit defuñu dara waaye nag damay jàpp ni mag ñaa ñu tooñ ndax mag kan ñoo wax ni jigéen ku ni yow la yow la waaye tax na nag jigéen ñu bari basé wu ci loolu di jiiñ ay viol waaye di jiiñ tamit ay ëmb ñoo xam ni laale wuñ sa moomuñu ëmb bi dañuy jeexale rek ci diwaanu Mbuur fi nga xamee ni muy police bu mbuur liggéey liggéey bu am solo jàpp ci li nga xam ni euh, toll na ci deux cent kilos euh, yamba boo xam ni jàpp nañ ko bi euh, sept paquet yoo xam ni jàpp nañ ko fi ñu ko ko jàppee nag moom sareet la yoroon vers zéro heure la ko doon yóbbu ngir rawale yamba boobu ci la police bu mbuur euh, lig def ci nag euh, topp ko ba jàpp euh, trafiquant boobu ca diwaanu mbuur mbokki xarit yi lii lañ leen andiloon muy seen li ñu leen di andi saa su nekk alal bu jot ci waxtu wi andi leen feere société yi gën a fës ci semaine bi muy li xew mbuur nga xam ne yaay ak juróom-benn nit ñoo ci faatu yemu ca andi nañ leen xale bu am sept ans nga xam ni moom it euh, de euh, cousin am la génn moo ko violé euh, ci këru famille bi waaye tamit ki nga xam ni moom it di borom kër gi nga xam ne njaati jankam moo ko génnoon ab ëmb gis ngeen tamit miracle gi ci am mbokki xarit yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal fàllu ci montage bi réalisation bi signor merci beaucoup jàmm jàmm ba mercredi incha allah